moom fi mu toll ni ñu ngi ñëw di tëj ñeen ñaari weer eh, suñu nekkaay fii vraiment di sant autorité religieuse yi di sant autorité administrative yi di sant autorité médicale yi di sant autorité locale yi ñi nga xam ne ñooñu accueillir fii eh, jox ñu fu ñu dëkk vraiment manqué wuñu dara toog di ñu toppatoo ci lépp te lépp daal vraiment ci sous euh, l'autorité du chef d'état-major général des armées qui nous a et directeur la service santé ñi nga xam ne ñooñu fi yónni vraiment liggéey nañ dans de bonnes conditions avec une bonne collaboration yàlla nañu yàlla may rek ñu fekkee bay fêter cinq Covid ci région de Diourbel mais également dans tout le Sénégal. ñaar fukk ba non téeméer ba téeméer rek juróom fukk par par par bis. depuis ba mu fi mu toll nii mi ngi ak ñaari weer daanañ def ay rajo daanañ fi def ay analyse daanañ def ay consultation ay garab yi ñu yoroon aussi daanañ ko may population yi mais daal li ci gën a am solo mooy li nga xam ni population bi accepté nañu teral ñu dalal ñu mais ay surtout autorités religieuses yi autorités administratives yi autorités locales yi mais surtout autorités médicales yi nga xam ne suñu ay collègues lañu vraiment encore une fois de plus ñu ngi leen di sant di leen gërëm au non du chef d'état-major général des armées au nom de la service du directeur du service santé des armées ngi leen di sant di leen gërëm. dama wax nag ne yéen ñii xeexu mbas mi dugal ngeen si seen loxo bu baax a baax a baax a baax médecin chef xam na ko ndax moom moo jël ba mu nekkee fii yore district bi yore médecin chef de région moo jël centre de traitement bi nga xam ne mooy hôpital Darou naan daal di ko foofu xam ne centre de santé la def ko centre de traitement waaye foofu am na ñu fa doon fajoo. amoon na ay soxla population yi dañ fa dem kon population yi amuñu fu ñu dem yéen ngeen ñëw taxawal hôpital bu mel nii ña fajoo jaaro ma nag nag ñeneen sax parce que lu mat euh, téeméeri nit ak euh, juróom fukk dañ fi ñëw ak fanweeri nit di fi ñëw ñëw nañ faju fii te bi ñu fi fajoo fa dëgg yàlla seen seen xol sedd na loolu mooy yéen dugal ngeen seen loxo si si si mbas mi parce que xeexu mbas dafa bari ay pàcc dafa bari maanaam li tubaab naan multi sectoriel multi acteur ku ci nekk rek man nga cee def directement wala indirectement yéen kon dugal ngeen ci seen loxo bu baax waaw parce que loolu boo amul woon euh, dañuy dafay sooxe kon système bi paanul maanaam centre de traitement yi ñu indi fii taxul suñu système bloqué ndax yéen a ñëw offre bi maanaam fii nit ñi daan mën a dem offre baa nga fa ba léegi kenn ñëwul rek ñu dindi dara di xaar kon koo gujjee déedéet ba ñu dindee dara ngeen ñëw taxawal dara kon boog dafay jaadu man mi nga xam ne maa fi teewal gouvernement bi ci région bi teewal ministre de la santé jé jiite comité régional de lutte contre les épidémies soo leen demee bay dem ma ñëw fii sant leen gërëm leen na euh, gàcce ngaalaama bi nga xam ne kenn ci ñu doon faj ñëw na waxal boppam nee na fu dëgg yàlla ñoom sax bëgguñ bëgguñu ngeen dem ndax gis nañ li ngi leen taxawoo li ngi leen di accueillir ku ñëw ngeen ngeen daal di ko woo gis naa bâche yi ngeen di teg teg leen seen chaise respecté distanciation bi ñu toog nga defal leen thermofraîche raxasu laaj leen lu leen jot consulter leen may leen garab fu dëgg yàlla foofu ngeen mën a yem li ngeen waroon def yëpp def ngeen ko ba tax na ñaari weer yi ngeen fi ne kenn yàkkamtiwul ngeen dem kon boog man dama leen di gërëm di wax ne wuyee ngeen seen tur armée sénégalaise fu nit ñi nekk bu dee bànneex ñu nga fa bu dee coono ñu ngi fa fu nit ñi nekk ñu nga te loolu mooy armée bi nga xam ne moo jig suñu réew yi ay boroomi xam-xam lañ ci wàll yu ne waaye euh, ñoom taxawu askan wi gàttandul euh, xittali leen moo leen tax a kon bokk loolu woo ngeen seen tur teg beneen baat bëgg ëpp doole sama bos wax na ko fii ndax ministre bi ministre de de des forces armées ñëw na fi ànd ak chef d'état major ba fii seet si leen biñ ñëwee naw nañ ñu naw nañu aussi fi ñu leen teg te xam ne ñun de fulaan lañ leen waa Touba jox lañ leen seen gëdd moo tax ñu wàcce leen fii bëgguñu dara metti leen fi ndaxte da ngeen ñëw pour fajal ñu seen soxla. ngeen ñëw ak yéene ju rëy nit ku yéene yéene ju rëy ju baax yàlla aggaleel ko yàlla la njëkk lañu njëkk a sant parce lii lu rëy la ngeen am fi lépp ñaari weer bis bu ngeen di xëy di faj nit d'une manière générale fay faj lépp ñaari weer yàlla population bu toll ne Touba ay nangami million ñu ci bari nañ bëgg a fajoo mani seen doole mayu leen ko te wéru mënta ñàkk pour loon Covid bi tam nit ki faaw ñu di ko faj faaw ñu di ko taxaw loolu doomu aadama moo ko laaj kon bu ngeen jëlee seen matériel jël seen personnel ay colonel nekk ci ak ñëpp ba ci suuf ci soldats yi seen service de santé ngeen ñëw ci dëkk bi liggéeyal fi Serigne Touba kon Serigne Touba moo leen di wax jaajëf Serigne Mountakha moo leen di wax jaajëf Serigne Touba Xaadimu Rasuul moo leen di fay ndax lu ñu fa def moom lañ ko defal kon cant rek lañ ci am <clears throat> Serigne bi. kon nee bu santee sunu borom sant leen ci li ngeen def ñu ngi gën a santaat Serigne Touba bi nga xam ne moom moom dëkk bi sasoon dëkk bi moom kese jenn jëmmam bay indi ñaari taalibi ñett taalibi ba muy indi kër benn kër ñaari kër ba dëkk bi tey demee nii mu demee dafay wéetoon moom kese ci suufu randam ci suufu bébam ay gaynde ko doon wettali ay rab yàlla mu wéttali ko boroomam moom di jaam boroom di ko ñaan ba liñ ci gis rek doy na sëkk te moom nee na liñ ci gis du dara ci lim doon liggéey du dara ci lim doon ñaan li ndax àdduna tuutee fi xaj kon tuute lañ ko fi indil kon jëpp nañ ne képp ku ci ko yëngule fii boo liggéey li faj fayog yàllaam ngi foofa dana la ñu sedd te foofa ku ñu fa sedd saxol sedd kon loolu kese doy naa sant yàlla seen liggéey bi jub na rafet na réy na ba léegi nit ñaa ngi ñëw ba tey am na ñu xëy si di laaj docteur yi loolu kon ngeen xam ne seen mission bi réussir na loolu day naa sant yàlla jóg jëm ci lu baax yàlla defal la jàmm dimbali la ba nga def lu baax loola ba mu kawe njor kon na xam ne yàlla nangu na la nga doon def yàlla nangu sa jëf na sant yàlla sëñ Muntaxa nee na sant na leen gërëm na leen dëkk bi ak njabootam fi nekk waaye yéen ñi ñëwit ak njabootam ngeen liggéey ngeen liggéey bu rafet bay dem yàlla leen yàlla fay ci barke Sëriñ